voilà asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre sur la TMS TV euh, ñu ngi fii ci kër xalif général kull médecine traditionnelle ki nga xam ne kenn dootu ko présenté muy El Hadj Thierno Moulay Sow fii ci résidence am euh, aux Almadies lan moo fi xew nag tey xam nga fan yi recevoir doona fi ay artistes yoo xam ne nii ñu ngi ko doon defal ay sketch yu rafet a rafet rafet ci koor gi tey nag mu dalaat encore yeneen artistes yoo xam ne sax am na ñoo xam ne bokkoon nañ ci sketch yi mu doon def sax tey ñëwaat nañ defe naa ne tey surprise tey lañ leen defal ndax artistes yooyu nga xam ne tey ñoom ñoo ànd ak jamono su suñu yegsee di ngeen xam ne ñii wax dëgg yàlla sëriñ bi am na fu mu teg art am na fu mu teg culture tey alors ma ànd ak salu Samb sur les commentaires ànd ak caméraman Pape Diagne alors Pape nga woneel ma foofu euh, maanaam euh, euh, entrée ascenseur bi bi donné ci étage yu marabu bi rek comme ça ñu mun a quand gis alors de de ces artistes ces grands artistes alors ñu ngi nii ñu ngi nii ñu ngi nii yegg si nañ alors gis ngeen leen waaw gis ngeen gis ngeen gis ngeen leen ñu ngi nii euh, kii defe naa ne euh, Tafala kenn dootu ko <laughs> présenté déjà lui il avait participé ah vraiment ci weeru koor bi ci sketch yi ah l'autre aussi il n'est plus à présenter Ndiaye avec sa belle voix sa voix mélodieuse Ndiaye Ndiaye yegsi na njool toj toj ah le comédien de charme ah le tonitruand père bu xar aussi il est là ah Moussa Diallo aussi on le présente plus alors voilà en tout cas cette euh, pléiade d'artistes ñu ñëw rendre visite le marabout wax naa leen le marabout quand au-delà de la dimension spirituelle du marabout euh, fi nga xam ne nii moom teg na fa aar parce que dama wax ne euh, aar moo nekk au début et à la fin mu ngi ci biir culture yéen nag comme ni ma wax keroog rek sëriñ bi am foo xam ne nii dafa teg aar parce que dafa xam ne aar yéen ay messager ngeen ay leader d'opinion ngeen mu ne wax dëgg yàlla sama partenariat bi ma bëgg signe ak les artistes dama ko bëgg a consolider dama bëgg mu dëgër yéen ñi nag defe naa ne kenn dootu leen présenter parce que wax naa ko fii keroog ma ne leen euh, Sénégal am na jamono euh, amoon nañ ay artistes yu ñu daan gis par mardi su le petit écran ñii dem nañ jiitu nañ ne yàlla yërëm am na ñu fi des. yàlla na yàlla dëggal seen taxawaay mais defe naa ne tey flambeau boobu nga xam ne moom la fi bàyyi boobu ñu fi bàyyi tey yéen yéen ngi préserver héritage boobu tey yéen a koy préserver ba pare sax ko yóbbu ci dimension boo xam ne ni sax yaakaaroñ ko woon mais dama leen jox rek d'abord ngeen nuyoo parce que nag xam nga sëriñ bi tamit li ma wax ne moom au delà dégg ngeen turam maanaam ci li muy faj parce que xam nga ne sóoratul jinne dafa am ci alxuraan te yéen ñëpp yéen a ngi suivre à travers TMS TV bi yi nga xam ne ni mu ngi koy def Euh, ngeen ñëw nag tey maanaam rendre ko visite de courtoisie fas yéene waxtaan na moom et dans un moment à l'autre sëriñ bi dina ñëw mais dama leen di bàyyi rek ñu def benn genre espèce tour de table ngeen présenté wu d'abord ak aussi wax maanaam TMS lii nga xam ne tey mu ngi koy li naan mooy télé bi nga xam ne nii mooy feeñal li nëbbu làmboom njëriñ. TV maa ngi leen di nuyu di nuyu ki nga xamante ni ndeysaan moo ñu invité fii ci këram di Thierno El Hadj Thierno Moulay Sow. yàlla dafa def nag man suma koo gis waaw dama koy euh, di seetaan waa di ko suivre nii ma ko gis ni muy fajee tarkalla ma ànd ak sama gars yi ñu def délégation fii ñëw seet si ko ndax kilifa bu la woowee ah wax dëgg yàlla lépp loo jàpp da koy bàyyi ndax it yàlla dafa def kilifa yàllaa koy def te moom kilifa la waaw invitation bi nag nekk loo xamante ni maanaam boole wuñ kook lenn ndax ci suñu biir xol lañu ko def ndax na lépp luñu jàpp rek dañ ko bàyyi. daal di ñëw fekk si fii ci këram këram gi nga xamante ni torkal la ku fi ñëw xam ni fii këru sunu borom dëgg la ku fi ñëw xam ni fii kër gu sell la ku fi ñëw dinga xam ni kër gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doo nga ko ñor ku fi ñëw it di nga xam ni kër gi wax dëgg kër taalibi la te kër it eh, këru këru këru këru jaamu yàlla yi la loolu moo tax ñu jàpp lépp lu ñu jàpp ñu bàyyi ko daal fi ñëw waaw <laughs> jërëjëf xaar ma jox sama waa ji ah, père <laughs> moom nag foog naa a ah, moom moo ñu dalal ah, ndax boo nee mu lay Sow ne Mortala Sow eh, eh, eh, kon boo kon sowen yi daal ñoo ñu dalal tey. <laughs> kontaan loolu li nga wax Ndiaye bég loolu waa ndax xam nga ñi sant Sow moom tubaarkàlla suñu borom a leen may <laughs> Sow pour la jéeri borom nag ak meew ya nu kontaan lool ci teewaay bi ñu fi teew ndax man li may njëkk a wax sax mooy. la tax ma gën kontaan ci sëñ bi euh, bég ci moom maanaam euh, nun nun ñun maanaam euh, daanaka pour nga bëgguñu léeg-léeg day jafe waaye sëñ bi daa bëgg comédien yi sëñ bi sëñ bi ci boppam moom daa bëgg artiste comédien yi ndax moom yor na chaîne yor équipe te at mu jot mu jël ay artiste comédien yu mag yu nu xam yëkkati alalam def ci ñoom ñuy liggéey ci koor gi am ca lu ñu yóbbu seen kër kon xam nga kooku maanaam euh, dafa bokk la ci ñuy ja dafa bokk ci ñuy jàpp te ñun loolu lañ soxla ñun ñun ci réew mi nu ne nun dama koy wax léeg-léeg dama naan nun ndeysaan léeg-léeg ñu gis ñu ci télé bi ñuy bégal gars yi nit ñi di ree bay bëgg dee te fekk fi nu toog ñun ci suñu biir xol ñoo nga ak mettit woo xam ni kenn xamul nu mu toll barke yonent ñoo ngi faj te fekk ñun wérunu waaye gis nga comme sëñ bi bu amee xalaat bu rafetee noonu di jël artistes yi di leen boole di jël alalam di yëkkati di leen jox kooko sant ko dafa war maanaam di teew di dem di ko nemmi ko dafa war te ci liggéeyam it gis nañ wax dëgg yàlla xëy na comme li Njaay wax sànq man mësuñu gisante man mësuñu gisante mais man weeru koor wi jot na sax may romb di romb kër gi ci weeru bootu géej gi di romb di ñibbi sama kër ak sama oto wax dëgg yàlla ñu arrêté ma foofu jox ma ay teraanga ci biir oto bi heure ndog heure dogu te xam nga nit kay def loolu di jël alalam di def ci doomu aadama yi vraiment kooku uh, dafa jara ñaanal te dafa jaro yor jara jàppale te ñu ngi gis tamit à travers TMS di gis tamit à travers ci YouTube beek ci yëpp yu baax yi muy def di ko defal nit ñi te Sénégal loolu lan soxla Sénégal dafa am gis nga suñu borom dafa am ñoo xam ne da leen a may lu baree bari ñenn ñi mu mosal leen ñenn ñi mu xañ leen ñamu may lu bari dañoo war di gestu ña amul dara te moom loolu lay def alal ji ko suñu borom may ak xam-xam bi ko suñu borom may mu ngi ci jàppale ay doomu aadama te réew mi foofu lañ toll réew mi loolu lañ soxla wu soxlawuñu ay milliards yu ne ci ay banque tënke fa te nit ñi nekk ci réew mi di dox amuñu liggéey di xëy di sonn am kër yoo xam ne bu nu añee du nu reer wala bu ñu reeree du nu ndékki bu la suñu borom dénkee teraanga da nga koo war a jël nga jàppale ci jaam ñi def na sëñ bi. moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bég nañ ci moom rafetlu nan invitation bi ñu ngi koy ñaanal ci barke Cheikh na seex sat Sadbo euh, yàlla na xam bi gën a yokku yàlla na ko suñu borom gën a taxaw ci barke yonent yàlla Muhammad waaw bég nañ lool bég nañ lool. <laughs> <laughs> waaw. <laughs> waaw dañuy waxaat asalaamaaleykum waat rek di kontaan ci pare ñëwaat fi parce que bi ñu sëñ bi recevoir fii yàggul donc ñun ñi nga xam ñoo ko doon defal ay sketch su koor ci seenam bi keroog recevoir nañ fi teraanga bu nekk def na ko fi donc tey su woote waatee recevoir yu mag yi defe naa ne kon li wax rek mooy am mooy nit sëriñ la sëñ la boo xamante ni mi ngi jox artistes li nga xamante ni moom la ñu moom la ñu yellool donc ñun artistes yi nag képp koo xam ne bëggoo ñu sonn. ñun lépp loo loo lépp loo baax dañ koy ŋeer waaw mooy li ma wax keroog rek nous sommes des des kii nous sommes des haut-parleurs mais des bons parleurs donc képp koo xamante ni tamit yaa ngi defal teraanga duñ ko rus a wax fenn parce que yaa ñu ko defal donc kon ñu ngi ko ñaanal yàlla comme ni ko père waxee di ko ñaanal yàlla mu gën a yokku xam-xam bi gën a baawaan parce que li muy def defu ko comme li ma wax fii keroog li muy def defu ko en différé en direct la koy def donc loolu la olof yi di wax ni ku mën ku mën da ngay def wala ku ñeme dañ laa deey donc daal ñu ngi koy jaajëfal ci lii mu defaat ci nga xamante sunu mbokk artistes yi nga xamante ni dunu mooy lim ma wax per léegi am nga télé am ngay caméra am ngay artiste li ci des mooy rek ñu jublu ci waar wi TMS yu bëree bëri war na fee mën a def te ndaanaan yaa ngi toog donc doolu laal la ñuy la ñuy la ñuy fàggu ci sëñ bi su ko defee rek affaire yi gën a saawaan gën a baawaan waxoon naa keroog nag wax ju du bëriwaat xanaa ma jox sama kii sama waa ji papa. waaw naaka naaka naaka xanaa rek di nuyu téléspectateur TMS yëpp ak fépp foo xamante ni rek sénégalais na fa ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay rawatina na ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy bége ah, ñooñu di nu bége nag daf ci am koo xamante ni tey daf cee bokk nekk koo xamante ni wax dëgg ne xala borom xam-xam la bu ñëpp nangul xam-xamam muy Thierno Moule Sow ah, mu daal ñuy def nangul audience boo xamante ni macha allah rabbi li tax ñu ñëw du dara lu dul magnifier ko wan ko ni ko. wax dëgg na xel la ah initiative bi mu jël créer chaîne am jël ay artistes comédiens di leen ci liggéeyloo ñun dañuy ñaan yàlla lu mel nii ñu baree def ko ci réew mi ndax it nag ñun loolu soxla li ñu soxla mooy suñu liggéey ñu mu am koo xamante ni dana ko dana ko fésal dana am koo xamante ni dana soutenir suñu liggéey ba pare lu jiitu sax TMS lu jiitu teemes lu jiitu chaîne YouTube bi Thierno Moule Sow daan na woo ay artistes comédiens ñu ñëw toog mu laaj leen seen i jafe-jafe lan la buñ ko waxee lam ca mën mu daal di koy def daanaka sax lu ci bare bare da koy saafara moo tax tey jii ñu ñëw ndax it nag wax dëgg na xal ku seetaan ci koor gi gis nga Thierno Moule saw lam ca def woo na ci ay artistes yu baree bare man la ma ca gën a neex mooy ndar-ndar ya ma ca gis muy sama doomu nday Moustapha Touré ak Marie Ñing ça m'a tellement ému parce que dama ni askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp ba tax teraanga jooju moo tax tey jii ñu bare bare xam naa kii seetaan dañ waa Njaay per bu xar Tafa euh, euh, lu mu tëti euh, Moussa Fall ah Moussa Diallo du moins njool tottet lan la ñuy def kër mu Moule saw li ñu fiy def du dara lu dul moom moo nu wan ni ñun les comédiens am na fu ñu teg ñu ni nag ñu war ñu war ko delloo loolu looloo waral ñu daal def déplacement ñëw seet si ko këram wan ni ko nag wax dëgg na xeyal ñun ku ñu ko timbax ñu rimbax la ko ku nu bëgg ñu gën la la bëggale ndax nag wax dëgg ne xel ku ne xam na ni comédie fii ci Sénégal ça ne nourrit pas son nom waaye nag wax dëgg ne xel ñu ngi sant yàlla ba nga xamante ni yàlla boole nañ ñu mel ni Thierno Moule Sow du ma ci tudd ay tur waaye tey amaan a xëy na bu ma nee ku mel ni Thierno Moule Sow yow mi toog di ñu seetaan te yàgg ñu soutenir wa nga xam ne li ñuy wax lu dëggu la ci ñun kon ñu ngi koy remercier moom Thierno Moule di ko ñaanal yàlla yàlla yokk kàttanam yokk mën ma yokk xam sànq père dafa wax lu am solo gis nga ci wàllu social dama koy tey jii ku mel ni Thierno Moule saw ku mel ni Waly Ballago Seck ku mel ni Youssou Ndour ku mel ni euh, euh, Ismaël Lo ba ci jëm si yàlla ji Thione Seck ci social yi ñu doon def nga xamante ni toujours dañuy wane ni ñoom en tant que des artistes ndax sa naat jël Thierno Moule Sow boole ci artistes yi nag ndax boo xoolee Thierno Moule ci ni muy solo ci décoration wu këram ci ni muy accueillir ci ni muy doxee da ngay gis ni toujours ñi ngi bégal nit ñi à travers son image te ñun looloon tax a jóg waa léegi nag bu fekkee yow da ngay bégale te bégalul la day xaw metti sànq euh, Moustapha wax na ko ci biir yi waxam maanaam artiste mënul bégale te te bégul donc bu nu amee koo xam ne dafa mel ni Thierno Moule Sow dinu woo ci këram dinu defal ay teraanga dinu woo téléphone dinu laaj suñuy jafe-jafe dinu ko fajal macha allahu rabbi ak ñu mel ni moom wax dëgg na xaal bu nu soxlaa nag ah dinañ teew kon tey ñu ngi koy remercier di sant waa këram yëpp nag di sant njabootam yëpp ak staff bi nga xamante ni moom la àndal du nuyu sama grand ba ca Paris xam naa bu ko bu ko seetaanee moom dana xam ki ma dana dana xam ni moom laay waxal borom grand théâtre maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax encore une fois de plus merci beaucoup. merci beaucoup Diol maintenant je ma ñëw ci sama rek sama xarit Moussa ah defe naa ne kër gi moom yaa ngi koy bëgg a miin nag. asalaamaaleykum waaw loolu moom am na moom euh, parce que fu nit dem dellu fa delluwaat fa rek dafa fekk lu neex wala lu baax te vraiment kuy wër lu baax soo gisee lu baax war faa mën a toog parce que nit ñaa ngi daw fu ne jëm jëm màkk lañ fa gis moo tax ñu fay delluwaat ñun nag dafa am fi gis vraiment mu neex ñu loolu moo tax ñu dellusiwaat fi te vraiment dafa am loo xam ne bii daf fi nekk te ñun artistes yi moom lañ bëgg mooy lan teraang parce que kuy defar ñun dañuy faj def teraanga teraanga mooy lan offrir nit lu ko reeloo parce que tey am na benn ndeysaan benn femme chrétienne léegi rek bi may ñëw dañ daje mu ne ma wallahi azim su ma gisee su ma bëggee lu ma neex rek damay taal seen kii di seen seetaan xam nga mooy faj man su ma banquee su ma leen seetaanee sax du ma am problème léegi nag ñun ki ñu koy defal mooy nu Moule dañu koy gërëm parce que ngërëm lu amul àpp franchement borom jinne faj. wanoo ma jinne yi rek lay faj day fayaale artistes yi kon nag bàyyeetul dara kon TMS ca kanam te TMS gaa yaa ngi nii tele baa ngi nii dafa war a génn siiw ni yokk lépp ni Thierno Moule siiwee télé bi da ngay gën a siiwee noonu artistes yaa ngi nii nag te artistes yi xam nañ liñ bëgg xaalis lañ bëgg te bu soobee yàlla da ngeen ree ba tas incha allahu rabbi Baye Aziz ñu ngi gërëm sëñ bi. voilà donc euh, dégg euh, la la première réaction. des hôtes, non honorables hôtes, les hôtes du marabout. Salut, vous nous faites un résumé en anglais, le temps de préparer l'arrivée du marabout. Effectivement, mais d'abord je vais commencer en français. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous nous suivez sur la TMS TV, la télévision qui montre ce qui est caché. Donc, vous êtes en train de voir euh, les belles images avec ces artistes vraiment talentueux. Vous voyez donc Ndiaye, donc, euh, un artiste extraordinaire. Vous voyez Père Boukhar, vous voyez Tafa Ox, il a donc Ndiol et il y a aussi Moussa Diallo. Ce sont des artistes à l'appel donc de Tcherno le roi de la médecine traditionnelle. il a vraiment donc besoin des artistes qui vont égayer tout simplement l'atmosphère, faire rire les gens, parce que les artistes sont en train de jouer un rôle important dans cette vie, parce que quand on est fâché, quand on suit un artiste qui nous fait rire, là, on oublie un peu ses soucis. C'est pourquoi Thierno Moule Sow n'a cessé vraiment d'inviter les artistes à participer, à jouer des pièces de théâtre uniquement pour égayer les gens et pour euh, donc dans le fauteuil en attendant euh, que le Khalif général le roi de la médecine traditionnelle, puisse descendre et parler avec euh, Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is here. you can see uh, these, uh, very nice, artists, coming from, every kind of, areas. You see Dan Ndiaye, you see uh, Per you see Tafa Ox, you see Njol Totot, and even Musa Diallo. They are here because they myself the Khalid General of the Gens, they have to discuss with him because you know the artists are doing you know a very great job. They are just making people laugh every time. And you know Chanam myself the Khalid General of the Gens, he does love the artists because he knows that artists would be participating in the development of this very country. Because whenever you just hungry, if you just listen or you just follow one artist who is just making you laugh, you can just you know uh, forget what you were do, you know living, what you were doing about. So that's why artists are really a very you know important part in this very society. That's what Chanam Mulaiso knows. those. That's why he's inviting them so as to work with them and try them to make everybody happy. So that's what is happening right now on Temis TV, your favorite channel, the channel showing every time what is hidden. Just to remind you that we are in the house of Chernomolay, so in Viraj, the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, Douai Aziz. Voilà, kon euh, camper le décor. Euh, dañ leen di jox nag rendez dans un petit instant avec bien sûr avec l'arrivée du marabout d'un moment à l'autre. À tout à l'heure. dëgg-dëgg war naa ñoo gisee gone Sénégal war ñoo gisee war naa ñoo gisee gone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita le roi des Djinné ayé waaw asalaamaaleykum euh, mbooloo mi asalaamaaleykum mbokku téléspectateur mbokku internautes yi ñu seetaan sur la TMS TV euh, ñu ngi fii ci kër euh, résidence privée xalif général El Hadj Thierno Moulay Sow nag mu war a ñëw nii ah wàcc ñëw ci salon bi salon privé ñëw fas yéene ah, dalal ganam yi ah, waaw mu ngi nii di nuyu gars yi ah El Hadj Thierno Moulay Sow. di danal gaayam yi di dalal ganam yi sëñ bi donc mu ngi nuyu nuyu gan ñi waaw jërëjëf donc dégg ngeen ko muy nuyoo dégg ko muy nuyoo bisimilah voilà donc euh, asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan sur la TMS TV euh, defe naa ne lii euh, duñ koy faral di gis tous les jours waaye nag li may wax rek ne euh, sëriñ bi dafa am beneen facette bu muy wone facette boobu mooy lan il avait déjà annoncé la couleur Saliou tey wax naa ko sànq bi ñuy def euh, tour de table sur la présentation de nos éminents artistes qui ont fait le déplacement pour venir rendre visite au marabout tey nag ñëw nañ seet si kilifa ñëw nañ seet si sëriñ koo xam ne kenn dootu ko présenté dans le domaine de la médecine traditionnelle ndax kiraama yi muy def koo xam ne kenn dootu ko présenté ci li ko yàlla may te mu jël loolu delloo ko sunu borom bi xam ne lu am yàlla la kooku mooy kan mooy El Hadj Thierno Moulay Sow sëriñ bi tey da am gan ñu mag parce que gis nañ li ma wax rek ne sa dimension spirituelle kenn du ko werante sa dimension sociale yàgg nga ko prouver ci weeru koor bi 32 millions en alimentaire trent 35 millions encore nga def ko ci laylatul xadri saa va ça a dépassé presque les 70 millions te defe naa ne loolu gis nañ ko mais sëriñ bi dafa am benn témoignage sa doomu baay la parce que Sow la sant nekk un grand artiste Mor Talla ñu koy per bu xar nee na ci biir koor gi dafa ñëw di jaar ci VDN troit bi mu ñëw ba tolloog foofu ñu droité otoom gis ñuy joxe ndogu keroog ci kër ga ndogu loolu nag defe naa ne c'est un signal très fort euh, xam naa ne ñii sax defe naa ne xanaa dañuy baamtuwaat présentation bi rek mais ñii defe naa ne à voir ces images li ma wax ne tey seen doyen yi nga xam ne jiitu nañ tey ku leen yeewoon tey tey seen xol dina sedd tey parce que héritage bi ñu fi bàyyi woon ci théâtre tey xale yi ñu ngi yor flambeau bi di ko doxal bu baax Moussa Diallo déjà lui participé woon na ci euh, maanaam sketch yiñ doon def ci weeru koor bi Ramadan mule daal di nag joué woon turu maanaam rôlu sëriñ bi nga xam ne moo doon faj jinne yi waaye nag defe naa ne faj jinne yi moom am na neen nu mu demee parce que dem na ba jinne ji rëkk ko mu ne maa xamoon xamatuma maa munoon munatuma alors ti si topp di Mortala Sow per bu xar per defe naa ne kenn dootu ko présenté et moi j'ai du plaisir chaque matin à l'écouter aux environs de 10 heures Allô Présidence je ne sors pas de chez mois sans écouter Allo Présidence. Je l'ai découvert lors du Festival du riir Rire à Kaolack. Il a été la grande révélation, Père Boukhar. Euh, Djibi Sey alias Ndiol toj toj mais yaakaar naa tey doo fi def toj toj <laughs> tey yaakaar naa doo fi def toj toj d'accord d'accord voilà alors alors Ndiol toj toj mu ngi nii moom tamit vraiment on l'a suivi très souvent à la 2STV vraiment muy bégal euh, maanaam di bégal téléspectateur di bégal àddina bi euh, Mous Moustapha mi toog moi je l'ai découvert il était très jeune mu ànd ak Dembi ànd ak ñoom Dembi ànd ak ñoom Jee Assu ak ñoom dërëm mii nga xam ne yàgg nañ ko suivre ñu ñëw ci centre sociale ba di fa def ay ay ay prestations moom tamit di jouer rôle juge ah ah ci ci <laughs> ci ci ci riirum tribunal moom tamit vraiment mu bokk ci parmi les révélations en tout cas euh, du théâtre sénégalais waaw kii nag moom defe naa ne c'est un artiste dimensionnel parce que au-delà en tout cas de nous procurer du plaisir ci li muy def euh, voilà un garçon qui peut imiter n'importe qui dans le monde de par sa voix macha allah loolu nag defe naa ne c'est pas donné à n'importe qui su wëyee demanaan noonu non mais kii lan la ar producteur di xaar pour produire ko parce que macha allah am na baat bi am na tonalité bi aussi donc muy muy muy muy Ndiaye njaay en tout cas on vous souhaite vraiment une très bonne continuation sur ce que vous êtes en train de faire euh, kon nag sëriñ bi tey defe naa ne euh, li nga defoon ci weeru koor bi lancement rek la partenariat bi nga defoon ak. Euh, équipe boobu defe naa ne loolu acte la boo posé parce que nag il faut aussi que les gens ñuy jox la place qu'il faut à ces artistes parce que rôle bi ñuy joué dafa bari d'abord dañuy éduquer dañuy sensibiliser dañuy alerter mais tamit dañuy distraire surtout nag distraire parce que sànq père mu ngi koy wax da ngay am tawat nga toog xool ñuy joué da ngay dem benn moment ba sax ñu ngi lay faj te faj boobu ñu lay faj ñoom feebar nañ da dox ñu feebar parce que boo demee sax ndeysaan bàyyiwuñ dépense seen kër te pourtant yow ñu ngi lay faj yow mais nag dañuy sant yàlla parce que nag quand tu moom bunt boo fëgg dañ koy ubbi kilifa yi dañ leen di soxla ñëpp dañ leen di soxla parce que da yor daare boo xam ne yéen yéen a ko yor yéen rek yéen a ko yor donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla vraiment yàlla gën dëgër seen taxawaay te lii ngeen xam ne yéen a ngi ciy yëngu euh, vraiment ngeen muruloo ko ak seen njaboot euh, sëriñ bi yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax parce que damay wax ne quand on dit qu'une personne elle est généreuse souvent du koy joxe du koy maye parce que nit mun na maye ba maye loo xam ne bugg ko mais nit la mu gën a bëgg su ko bokkee rek nga xam ne kii am na générosité te moom mooy xaalis te yaa ngi koy bokk ak askan wi yaa ngi dimbale askan wi sànq on a revu encore les images du 30 mai 2021 ngay joxewaat benn signal très fort parce que fête des mères da nga toog ba guddi nga woo ñu ne ñu ñëw leen je vais essayer de faire une surprise à ma maman parce que nit amul lu dul ndeyam ñu ne ko ah sëñ mu ne waaw acca pare leen ñu dem ñu dem seeti waajuram bu jigéen presque il faisait au-delà de zéro heure passé na boobu sax soxna jigéen ci tëdd na mu ñëw yëkkati gàddu boo xam ne nii macha allah teg ñu teg gàttu bi mu boole kook ay denrées alimentaires yoo xam ne dara manqué wul ñu foog ne foofu lay yem mu làmb poosam ne ko yaay cinq cent mille francs yi day moo ànd ak kàddu bi ñu ne ndax foofu lay yem mu ne ko nañ génn ci mbedd mi vous avez vu les images daal di yëkkati caabi oto ak kayit yeeg yëpp daal di jox yaayam ba pare waññee ko dem bàyyi ko fa. donc defe naa ne loolu image la boo xam ne ni tey képp koo xam ne ni am nga waajur am nga chance encore dund ak sa waajur war nga mun a profité pour bégal xolam parce que yaay yaay kenn rek la te ku bégal sa yaay nit ñi nag ñu ngi rawante seen waajur ah. per loolu ñëpp xam nañ ko waajur amul morom. parce que ka nga xam ne nii gannaaw yàlla moo tax nga ñëw ci àdduna kooku boo ko fonkul defe naa keneen koo fonk rek sànni ko ko keroog ca saal ba dama ne dama ne buñ ne ndax nit baax na nañ laaj ne na ndax mbokk yi ñoo ko wax te bala ngay def ci àll ba nga def d'abord sa mbokk mais moom daf ko commencé ci waajuram commencé ko ci ay mbokkam ba pare donc suy dimbale doomu aadama yi di dimbale ñum ñum xam ak ñum xamul yëkkati ay presque 70 millions di ko jox c'est parce que daf ko njëkkee ci waajuram te yaayam bi mu njëkkee ci témoignage daf ne lii day xanaa dafa ñëw rek di ko def mais lii c'est pas la première fois mu di ko yàgg na ko def donc sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yow tamit euh, ci li nga yëngatu nii vraiment yàlla gën a yëkkati sa martaba ne fi ni Sénégal dañ am ci yow yaakaar nag Sénégal am nañ bu baax ci yow yaakaar parce que ñun ñi nga xam ne ni xëy na yàgguñ sa côté di liggéey amoon nañ sax jeexi jaaxa ah ci ay affaire ay jinne ay rab affaire yu mel noonu mais liñ naan lu ne fàng kenn du ko jeex parce que yàgg nañ gis ay kiraamo yu mu de wallahi azim yàlla rek a tax may wax chaque jour nga wane loolu ba keroog talaata biñ talaata sax man mu dama mujj dem ñibbi donc ñu lay gërëm bu baax une fois de plus vraiment di am kontaan nag di am aussi honneur vraiment di la di la liggéeyal Euh, xam naa ne dama lay jox nga nuyu gan ñi rek après nag ñu ñu ñu ñu tëj micro bi waxtaan ba pare après doogu ñëwaat ci ci ci waxtaanu sëriñ bi. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi mina sheytaani rajim wala xawla wala xuwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku adduna bi yëpp. di nuyu mbokk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan ci TMS TV mooy tele bu mag boobu nga xamante ne macha allah moo làmboog njëriñ di feeñal lépp lu nëbbu ñoo ngi nuyu ñëpp taalibe yi suma taalibe nga xamante ne ñoo ngi nekk partour dans le monde ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di kontaan bu baax a baax nag macha allah ci suma gan yi tedd yi nga xamante ne vraiment ay artistes comédiens la ñu nga xamante ne macha allah ñëpp xam nañ leen. vraiment ñoom damay wax ñoom tamit vraiment daanaka maag ñoom ñoo yem rek parce que ñoom dañuy faj xam nga ñun dañuy faj dañuy ñaanal nit ñi ñoom it dañuy faj parce que li ñuy def nii comme li nga doon wax doyen euh, parfois nit day tëdd ci hôpital feebar wala nekk ci këram feebar wala am problème jaaxle nga gis ku mel ni père bu xaab mu def ay affaire nga reetaan ba fàtte sa problème wala nga ree macha allahu ba nga tane parce que am na feebar yu bëri stress moo koy def ak ay xalaat yu bëri léegi nag ñoom njaay ñoom euh, macha allah njool toj toj ñoom euh, oxu ñoom njaay comme li nga waxee njaay moom ku ne lay imité macha allah macha allah suñu ma surtout suñu papa ju baax jooju euh, alaaji Mansour mbay père ak suñu yaay jooju nekk Tëngéej xaar mbay ndeysaan xam nga yooyu dafa dafa garaaw dafa neex macha allah ñoom Moussa tamit xam nga sol mbubbu sëriñ xam nga di wane ay affaire yooyu dafa am solo daal vraiment ñoom tamit vraiment liggéey bu rafet la ñuy def liggéeyu noobul la ñuy def macha allah kontaan naa bu baax a baax seen teewaay fii ci man macha allah lii moom mbégte la vraiment macha allah ba ma Moussa waxee ne gars yi dañ laa bëgg a seet si ma ne ko na gisante ak yaat ma après si lañ leen jàppal tey ñu ñëw macha allah ma am ferte lool kontaan ci ñoom lool vraiment ci seen teewaay am mbégte lool macha allah di nuyu aussi doyen maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Saliou Samb di nuyu si Sila Moule yaat ma Moule di nuyu aussi Pape ci maan bi macha allah di nuyu aussi Kara di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi salaa salaam di nuyu madame Sow la reine princesse di ko nuyu bu baax a baax di nuyu aussi prince Moulé macha allah di nuyu soxna ummi ak ajaratu Mariama kamara vraiment bég naa nag sama gars yi ñëw nañ seet si ma loolu mbégte la ci man mbégte la aussi ci yéen macha allah di leen dalal jàmm galle àlla galle moom fii daaru laahi la kër yàlla la Thierno Moulé Sow macha allah pour ñëpp la ñit ñi dañu wax Thierno Moulé dafa jafe-jafe gis déedéet boo jaaree fi nga war a jaar rek mun nga gisee ak mu Moule ndax nit la comme ñëpp bu ñu paree liggéey bi bu ñu ñëwee suñu kër maanaam ay nit yi simple lañu ay nit yi nga xamante ne macha allah di ñuy partager doomu aadama yi kon nag kontaan naa ci seen ñëw fii vraiment njool moom mus na mus na euh, sama grand théâtre bi macha suma benn taalibe euh, mus na ko jël ñoom ñu joué ñoom ak ñoom ak Tafa Tafa Touré ñu def ay affaires yi rafet ci ci ci ci sama grand théâtre bi allah kon nag maa ngi kontaan bu baax a baax. Père Bouhane moom macha allah moom moom sama artiste la. moom daf may daaneel vraiment dama koy suivre. boobu sax gis nga ñëw ñëwagul fii ma ne sama soxna yàgg naa ko wax ma ne ko moom sama artiste la. parce que yu muy def daf may damay dama koy ree rek macha allah. gis nga yàlla dogal mu ñëw ci kër gi tey ma am fierté ak mbégte loolu. vraiment maa ngi kontaan bu baax di leen dalal jàmm. kër yàlla seen kër la daarullahi doyen macha allah vraiment am naa mbégte lool macha allah. te defe naa ne aussi am ngeen mbégte te ñi ñuy seetaan tamit am nañ mbégte ndax ñii ay artistes la ñi nga xamante ne vraiment macha allah ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi yee nit ñi ñoo ngi reetaanloo nit ñi aussi ñoo ngi ñoo ngi def seen ñoo ngi bay seen waar bu baax a baax macha allah. jërëjëf sëriñ bi donc def naa ne loolu leer na dalal nga gan ñi mais bala may tëj damay jox saaliw pour mu pour mu defal ñu un résumé en anglais hmm. c'est vrai que ça a été des grands moments de retrouvailles euh, du marabout avec ces, ces artistes qu'on ne présente plus, qui ont pendant très longtemps nous ont égayés, pendant très longtemps en tout cas nous ont donné du plaisir aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure en Wolof, euh, ceux-là qui leur ont précédés, ces illustres euh, artistes euh, qui ne sont plus de ce monde, même s'ils sont à peut-être, ils se sont un peu démarqués de la scène. Euh, ils seront fiers de leur fils Ils seront fiers, en tout cas, de ceux-là qui sont en train de porter leur héritage. Je le dirais souvent, le flambeau, vous êtes en train de le mettre à un plus haut niveau. Et cela nous fait grandement plaisir quand vous venez rencontrer le marabout, au-delà de sa dimension spirituelle, au-delà aussi de sa dimension sociale, il est en train en tout cas de montrer une autre facette de ce qu'il a envie de faire pour faire plaisir en tout cas à ce monde pour faire public, à, surtout à ceux-là qui suivent la TMS TV. Comment ce partenariat qu'il a déjà posé en acte lors du mois de Ramadan, du premier jour jusqu'au dernier jour, quand même, on a eu du plaisir à regarder en tout cas ces belles séances qui nous ont fait rappeler beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous êtes là, cela veut dire qu'en tout cas, les relations qui déjà existent sont en train d'être peaufinées, sont en train d'être matérialisées. Et je sais qu'au sortir de cette rencontre, quand tout le monde verra que partenariat, une amitié est en train de naître entre ces artistes et le marabout Thierno Moulay Sow. Euh, ce luxueux salon <laughs> du, du marabout, comme j'ai l'habitude de le dire, euh, bu ñu nee sëriñ bi dafa bugg lu jekk dafa bugg lu maanaam lu yànji dafa bugg lu luxe mu ne bu la yàlla teree da nga koy wone yàlla duma ma teral ba pare may sol ay sagar wala ku ma gis yërëm ma mu mel ni li ma yàlla defal dama koo gisul moo tax vraiment dama bugg lu baax bëgg lu rafet bëgg lu taaru alors euh, ma njëkkee nag ci euh, le premier euh, njaay jaata la voix de Rossignol lom l'homme multidimensionnel ki est capable d'imiter n'importe quelle personnalité Ndiaye ñu jox la kàddu gi. waaye jërëjëf dama naan alhamdulilah ala kulli al di sant sunu borom moom mi ñu mat ba indi ñu ki nga xamante ni dama daan toog daan rêver pour gis ko loolu yàgg naa ko wax Moussa Diallo. bu ma mosaan a jaar ci autour ci VDN bi ba toll ci buntu këram billahi lazi la ilaha illa huwa lu ma daw daw damay ralentir taxu xool xool xool xool xool photom ba soog a continuer kooku yàlla laay jël seede ma doon ko wax Moussa Diallo ma ne ko toog nii rek musaa Diallo di di wax ba tudd turam ma ne ko waa Moussa Thierno kañ laa koy gis mosuma koo gis <laughs> bi mu ko ko waxee mu yomb lool ndax nit dina nekk ci gannaaw du xam sëriñ bi nu mu demee yaakaar ni dafa jafe dafa kii comme ni mu ko waxee woon sànq mhm. waaye kii ma jàkkaar lool nii nitu yàlla dëgg laa gis tey li tax ma ne nitu yàlla la social bi kon dama naan kii est-ce que li muy liggéey moom mu ngi koy jariñoo mu ngi koy lekk <laughs> ah déet dama xam ni boo liggéey ba am xaalis delloo waat ko ci population bi li nga am di ko liggéey war ko di ko joxewaat kon dama naan kii li muy jëlee fii loolu lay delluwaat ci nit ñi rek <laughs> te dëgg dëgg loolay doxinu kilifa ndax kilifa day am ba pare di partager ñi nga xamante ni nii ñooy jàmm yàlla yi tey am naa mbégte bu rëy rëy rëy rëy toog jàkkaarloog sa jëmm ji di ñaan sunu borom tabaraka nga yàgg fi lool te wér ndax sa yàgg fi dafa amal njëriñ askanu Sénégal mën naa ne tey laa mës a toog maanaam sëriñu fajkat bu mel ni yow ci la première fois te ma yàgg koo seetlu ci yow yàgg seetaan say image ci internet bi ma naw la ci lool di ñaanal sunu borom saa su ne lu fee nit feebar feebar feebar yàlla na ci sa ndam di feeñ saa su ne kontaan naa trop teew ci kër yàlla gi ni nga ko waxee woon sànq xanaa ma jox rek sama waa ji Moustapha. waaw Moustapha sànni ci kàddu Moustapha aussi yow tamit defe naa ne li ma wax léegi rek ne kenn dootu la présenté malgré ton jeune âge quand vraiment euh, yaa ngi yaa ngi dëggal sa bopp ah yaa ngi nekk dans le cercle restreint en tout cas de ceux-là qui sont en train de nous faire du plaisir alors ñu jox la kàddu gi. waa ñu ngi waxaat asalaamaaleykum rek di sant yàlla bu baax a baax comme ni ko Ndiaye waxee di nuyu sëriñ bi bu baax a baax di wax ni comme niñ koy waxee chaque jour kontaan. ci tase kilifa boo xamante ne par exemple àdduna bi dañ ko bëgg gis yow saa yoo ko bëggee gis mu yomb loolu euh, ndimbalu yàlla la donc ñu ngi koy ñaanal yàlla di wax ni nag comme ñun aar bi rek la am te gis na mu tax mu ñu taxawu artistes yi comme ni ñu taxawoo ci koor gi loolu moo tax moom comme ni mu ko waxee fii keroog rek saa yi ñu soxlaa moom nous sommes disponibles parce que moom moo ko wane waaw li mu wax nag dëgg la àdduna tera teraanga àdduna parce que tey am na sëriñ yoo xamante ni waxuma sax euh, gis leen mais tey bu la rombee sañse rek yow da nga naan ki amul benn maxaama fekk ñoo ko yóbbi seen bopp mais dëgg la yàlla bu la teralee da nga koy da ngay delloo yàlla njukkal mooy sañse tey nit dafay tiitaroo sama sëriñ dafa mën a sañse mais tey ku nit bëgg-bëgg sëriñam boo ne ko sa sëriñ civilisé wul da ngeen xeex ba dee <laughs> waaw te sëriñ bi ñun saa ko gisee ay jasneeru rafet lay sol ça veut dire que euh, moom loo loolu la ko yàlla jagleel leneen li mooy li seetaan ci télé bi muy deko muy delloo njukkal yaayam donc ay nit lan yoo xamante ni tey jii lépp loo xamante ni dañ koy lancer ci message mooy ni ku nekk ci àdduna soo bëggee dem ci kanam da ngay respecter sa yaay mhm. bu dee bu bu fi nekkulee nga koy ñaanal loolu la wax donc ñu gis mu def acte boo xamante ni tey ñëpp ku nekk ci li ngay yëngatu nii xalaatoon nga jour sa yaay fekke ko nga defal ko ko parce que jox sa yaay xaalis jox ko oto mhm. euh, yóbbu ko màkk loolu moom yaayam talal loxoom ñaan xam nga tey ñun ñi kenn ndox Thierno Moule yaayam ñaanalu ko parce que gis nañ ko fii mu talal li loxoom yaayam yaayam ñaanal ko donc comme ni ñu koy waxee moom bu la sa yaay ñaanalee jaru ngay ragal donc kon ñu ngi lay ñaanal yàlla doomu ñey kenn ko wax yàlla na nga am yaram dañ koy ñaanal yàlla na nga gudd fan kon daal ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla bàyyi la fi xam ni ni nga ñuy recevoir nii chaque instant kontaan nañ ci torop torop torop torop jërëjëf amin waaw euh, Djibi Seye lui aussi moom tamit euh, un artiste vraiment ki a égayé, émerveillé les téléspectateurs, surtout à travers la deux stv ah mais ji bi xam nga loolu bi muy joué leneen dafay dem ba ci ay njombe rek lañ koy dégg moo tax ñu ko eh, ay njom toj-toj ah mais xam naa ne tey moom nee moom tey du def benn toj-toj. ji bi ji bi kàddu gaa ngi noonu. Euh, tout tout d'abord man maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi euh, euh, gërëm yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di remercier WFT euh, Thierno Moule Sow envers les artistes ñun amuñu lu dul suñu art ñun loonu teral teral teral teral teral te fonkoo suñu aar ñun wax dëgg ne xaal jàppewuñ la lu am solo euh, loolu li tax ma di ko wax mooy moom dafa wane ni rek ni dëgg-dëgg xam-xamam lu wér la ndax ku am xam-xam rek moo mën a comprendre lan mooy njëriñu artistes yi am na si ñoo xamante ni bari na ci réew mi ñoo xamante ni boo waxee ñun ñun li ñuy def dañuy dof dofu am ñoo xam ne loolu lañ ko tuddee et pourtant de toll nga ci benn moment boo xamante ni reetaan nga te pourtant amaan nga xëy na ki lay reetaan loo sànq yaa ngi koy wax peut-être ñu bari dañuy jàpp sax ci yenn saa yi que ni artiste bi amul yorul fekk wallahi al azim sur le plan social mhm. sur le plan social allahu rabbi ni ko mu lee di defee ñu nit on nous sollicite ah de cette manière moo tax dafa am ay jikko mhm. yu nu boole mhm. sànq dafa wax ba mu méngale xanaa dana jaaxal ñenn ñi ni dimension Thierno Moule toll mu ni man de fajkat laa ni ñoom ni nii fajee dëgg la wax jooju dafa rëy ndax wax ñun ci wax la ñuy liggéey bu waxee loolu Thierno Moule nee nañu man ak yéen ñoo bokk nday ak baay man noonu laa ko déggee Thierno Moule nee na ñun les artistes nous sommes ses frères xëy na ñun ñoo fi toog waaye yow artiste bi may seetaan na nga xam ni Thierno Moule xam na la bu baax a baax a baax te moom laa gis koo xamante ni bu la gisee benn yoon jeex na Thierno Moule bu la xasee ba jox loxo ngeen nuyoonte mun la loo tudd nga ni ko diw boo ñëwaatee mun la diw te du fàtte jëf grand théâtre bi yàgg na yàgg na de sànq maa ngi koy tudd pour man sax fogeet na ko parce que ci li muy liggéey dafa dafa dafa doy waar dafa doy waar parce que wa maa xalaqul jinna wal insa illaa liya'buduun maa bind nit ak jinne lu dul ñu jàmm ma kon moom bu taxee ni la wax dëgg ne xel day faj ay jinne nga taxaw fee daan ni mais est-ce li muy wax loolu c'est parce que jàngaloo alquran lu am la tey jii di nga gis ñoo xam dañ leen di faj ci ruqiya am ñoo xamante ni wax dëgg ne xel dañ leen di faj ci yeneen ak yeneen waaye macha allahu rabbi mu représenté waat benn entité boo xamante ni tey jii ñun sunu culture la et on est fier quand il l'évoque muy lan surtout Soundiata Keita la mu nekk benn histoire boo xamante ni ñun les africains ba tey dañ koy namoo kon man su ma koy xool dama koy xool ci ay facettes yu baree bare waaye li ma gën a neex mooy ñun saa buñ ko soxlaa du jafe te maa ngi wax képp koo xamante ni soxla nga Thierno Moule Sow ci wàllu wéccante xam-xam d'abord ndax it yéwoon na ci xam-xamam pour kii koo xam da nga jóg pour sàkku xam-xam boo ñëwee ci moom dana la jox xam-xam ki nga xamante ni aussi ci wàllu social da nga yor say soxla mi ngi nii toog boo ñëwee dana ko faj wallahi la azim père mi ngi naan ma ci koor gi moom dafa romb man chaque jour këram danaa fa gis mbooloo moo xamante ni liñ ne ci biti man xam naa liñ ne ci biir maam ñi toog ci biti ñi ne ci biir ko ëpp këram R plus 2 la xaw ma R plus ci ci booru géej gi macha allahu rabbi day fees dell ki nit macha allahu rabbi day fees dell ki nit te ñëpp lan la moo leen tax a jóg ñii dañuy faj si waaye ñii itamit dañuy ñëw pour wax seen soxla mu faj ko waaye maa ngi wax it kilifa bi nga xamante ni wax dëgg na xel bëgg naa jëflanteeg Thierno Moule saw ci wàllu mbooloo ci wàllu kaaraange ci wàllu ñaan boo ñëwee Thierno Moule macha allahu rabbi ndax na man loolu laa gis loolu laay seede ci moom may ñaan yàlla nag sa gudd fan ak sa wér waaye nag dafa am leneen loo xamante ni daf ñoo marqué muy waajur. la ñun les artistes ah boog man ñi ma xam te seq ak ñoom jamono te ñuy ñu am amuñu lu dul suñu waajur yu jigéen ñi suñu sonn ci àdduna maanaam suñu rayante gi yëpp man j'étais informaticien dama ko baax parce que jamono yooyu théâtre moomu gënoon a jege ngir xaalis boo xamante ni dinaa ko dimbalee sama waajur ba tey jii alhamdulilah rabbi alamin bis bu ne dama koy magnifier dama koy wax keroog ba nga xamante ni tarbiya na ci Maolana Cheikh Ibrahima ñas dama ni man du ma téye kurusam téye wérdam naan damay tiyaat dama koy bàyyi Baye Niass ci boppam laa gént Thierno euh, Thierno Yaay Dukke mi ngi toog premier mu xaddamam ca Ndar moom Baye Niass moo ni ma ni ma jàkk ci bët ni ma bàyyi théâtre amateur nga def professionnel teguñu ci ñetti weer ci laa tàmbali ci télé ba tey jii alhamdulilah rabbil mi ñu ci sant suñu borom bu baax baax a baax a baax kon mu Moule boo nu recevoir ñun les artistes comédiens wanewul rek lu dul la mag ña waxoon nee boo duggee ci kër ñu teral la di yow mi nu teral yow yaa tedd ndax it boo xoolee daanaka ba nu ñëwee rek macha allahu rabbi daanaka saal bi yëpp ay fruits la ñu tegal ñu suñuy ndox tegal ñu suñuy boisson macha allahu rabbi nga xam ni kii am na fu la teg dugal ñu nag ci saalam bi nga xamante ni saalu boppam la fa muy teg président de la république mu teg fa artiste comédien yi. ba pare wax leen ni leen di ngeen di faj damay faj. am lu mu leen am lu mu wax mais wax jooju man xew maa ngi koy bamtuwaat rek. Mm, mm, mm. dama bëgg ñu bàyyi xel ci loolu. kon yow it Thierno Moule mm-hmm. na nga xam ne ñun itam nous sommes tes frères. boo nu soxlaa dinañu teew. en tout cas on est vraiment heureux. Mm-hmm. may wax rek que ni. Mm-hmm. bu la teralee bul jàpp ni yaa tedd. waaye kila teral. moo tedd ba ku ñëw mu teral la ci teraangal. kon macha allahu rabbi moom mii te nit du may lu dul li mu am. dëgg la kon teraanga jooju macha allah rabbi moo ne ci moom. sant nan la gërëm nan la. te ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér. bu dee na sama wax ji am na lenn loo xam dëng na ci. maa ngi ciy jéggalu. wallahi lazim xol bu fees rek laa waxee. merci Mortalla merci beaucoup au mois au moins au moins euh, téléspectateurs yi pour cette fois-ci Djiby deful benn toj-toj. <laughs> alors alors ki ñu jox kàddu. Eh. Euh, sëriñ bi wax na ko c'est une révélation aussi du théâtre un nom talentueux wax naa ko muy génn ci facette yu bari vraiment moi j'ai du plaisir à l'écouter chaque matin euh, muy Mor Sow moom nag la particularité tey que doomu baayam la ñëw Euh, père Boukhar vous avez la parole. <laughs> jërëjëf kontaan naa foofu nga tëjee noonu ko tey moom mën naa ni maa dalale. ndax ndax waaw kër waaw kër sow kër sow Pula laa ñëw. waaw ma kontaan lool bég lool. Mhm. ma kontaan lool bég lool. Mhm. Eh, ñaanal ñëpp gudd fa ak wér. ci barke ti yàlla Muhammad. Eh, ndax xam nga daanaka mooy am na sax répétition lay doon ndax gars yi fi ne daanaka man la ma bëggoon a wax yëpp dañ koo coqati wax <laughs> ndax xam nga tubaarkàlla lii lii lii ngëneel la te man fi mu ne tey ndeysaan sama xol dafa sedd li tax mu sedd mooy man lépp lu ma mënoon a naqari sax ci théâtre bi muy def mm. mën naa ne tey neex na ma <laughs> ndax am naa kilifa gu mag goo xam ne dama ko daan déggandéem nii rek mm. tey dalal na ma mm. kon loolu ak sant yàlla la kon loolu sant yàlla la ndax xam nga nun wax naa ko sànq fii nun dañuy faje mais léeg-léeg nun nu feebar ci suñu biir nun dëgg la <laughs> mais moom wax naa ko fi sànq gis nga man nee naa euh, xam nga des fois damay toog ci tele yi di ko wax nu naan ma perte léeg-léeg da ngay ŋàññi da ngay ŋàññi ma ni déedéet du ŋàññi de man damaa bëgg ku bëgg artiste comédien man bu ma gisee ku jël artiste comédien yi teg leen fenn non man dama lay bëgg barki bi te moom mu Moule dafa bëgg artiste comédien yi fu leen fekk teral leen jox leen seen wàccuwaay weeru koor gi bu ko neexoon ne mënoon naa jël euh, télévision TMS def ci leneen waaye déedéet dafa woo ay artiste comédien jël ci teraanga ji ci suñu borom jox mu leen ciy jox kon xam nga loola maanaam te ñun boo teralee kenn teral nga ñëpp boo teralee kenn teral nga ñëpp te fii nit bu defee lu baax toroxal ñëpp mm-hmm. te nit bu defee yàlla dafa bëgg maanaam comme li ñu doon wax sànq gis nga euh, euh, yàlla bu la mayee non foog nga manifester ko wane ko xam nga soxor weesuwul iñaan weesuwul nit romb la sol lu rafet di xeeñ lu neex nga ne patt nga ne patt ba mu romb la te waxoo dara <laughs> loolu ci soxor la bokk mm-hmm. ci xeeti soxor da cee bokk mm-hmm. da cee daa bokk ci xeeti soxor mm-hmm. mais Thierno Moule nim nu apprécier loolu daa bokk ci jaamu yàlla bokk ci gëm yàlla ndax nit bu sa gis nga nit boo yorul xol bu rafet doo nangu mukk bu sa xol rafetul sa xol laabul doo mës a nangu ci àdduna ndax toujours am na lënd wu sa biir woo xam ne maanaam loo bëgg a rafet lu moo koy muur waaye moom boo ko xoolee xam ne boroom xol bu rafet la te boroom xol bu sel la ndax nun nag comme li euh, euh, tafaawax ñun ci communication la ñu ne. dëgg la bari na fu ñu dem ci àdduna bari na lu ñu gis bari na loo xam ne dañ koy jàng. nit ki bu nu toogee yow rek non nun mën na noo xam. Mm-hmm. surtout nga wax. tout boo waxee rek. Mm-hmm. nun mën na noo xam. Mm-hmm. waaye moom mii day wax dëgg yàlla. ah nun de jàpp nan la. nun de jàpp nan la ndax wax dëgg yàlla nit amul lu dul ko ko yëg. te yow wan nga ne nu yow ñun dañ noo yëg. te doon nu bàyyi xel man mosuma foog ne man am Thierno Moule xam nam per bu xar. ci ay mu jinne. waaw bilaay man <laughs> mosuma ko wax dëgg yàlla. waaw toog la bàyyi wax dëgg waaw wax dëgg yàlla. bay apprécier waaw. <laughs> kon kon lii lii sant yàlla la lii lii maanaam sant yàlla la wax dëgg yàlla. kon nun mën na noo jàpp ne nun li ñuy liggéey. nun kon mi ngi rafet. dëgg kon li ñuy liggéey ñun jàpp nañ ne noonu li ñuy liggéey mi ngi rafet. ndax dalal bi lii rek da koo wane. lii rek da koo wane bu la neexoon kat da jóge ci liggéey ba da sonn da ngay doonu recevoir mais gis nga bi accès xalifa jinne yi mooy sa <laughs> doy na barke Yonent bi mi ngi noonu. yow xalifa général doy na wax dëgg yàlla. ay <laughs> moom daal mu euh, amatul lu ñuy wax wax dëgg yàlla moom daal di la ñaanal. waaw di la ñaanal daa wax dëgg billaay billaay mi ngi noonu mi ngi noonu billaay ndeysaan oh xoolal non moom kay ñun dañuy créer leneen nun dañuy créer leneen loo xam ne dañ koy tourner muy dem TMC loo xam ne maa comme tabaski ngi jub si nan def wàccaayu tabaski nan ka def gerte mun la saw. waaw gerte waaw kay mën naa ne. la saw lay doon gerte gerte waaw gerte ga. gerte mun la saw lay doon rek. rek. waaw moom daal moom daal sëñ bi sëñ bi daal ñi ngi lay ñaanal ci barke Cheikh na Cheikh Sadbu di la ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad li nga bëgg yaa ko xam euh, nun amul lu dul rek ku nu yëg nu bëgg te yow mii dang noo wan ne noo yéen ñi dama leen a bëgg dama leen a yëg te àdduna noonu la waaye jàppal na yow sa bopp noo mel ci nun rek mhm. mel nan ko ci yow nu ko raw te ni ko gaa yi waxee sànq foo nu mënti soxla ak fu mu mënti doon boo doon dem fi mu ne tey ba Cap Skirring nu tuddee la fa bis nga ne gars yi kat Cap Skirring lan ma tuddee bis barke yonent yàlla Mohamed boo départ en départ topp la tey it la benn affaire ci moo Cerno Mulli waaw dama lay waxaat beneen mbir nga jàppaat ko mhm. mooy dafa am benn taalibe boo xam ma nga ca France du ma tudd turam mhm. milliardaire mhm. xam na bu baax li may wax mi ngi may dégg mi ngi may gis daf ñoo fay lan wax ak moom ñu fay ko ba noppi Thierno Moule daal di dugg ci saal bi ñu toog ak Thierno Moule ci néegam mu ni kontaan naa ci yéen baat boobu nga wax kook bi nga wàccee daf ñu joxaat lu ëpp lam ñu fayoon ñu nu Thierno Moule ndégam kontaan na yéen di gën a kontaan. waaw. dafa Euh, xam nga dama woon dara bëgg leen may. mais dañ maa reetaanloo. Mhm. ba ma fàtte sax may leen ko. <laughs> xolal xolal mu ne ma non dina leen seet. comme fàttaliku nga ko rek. waaw waaw. Ah, mais def nañ vraiment loolu lañ ma ba man. fàtte naa leen <laughs> dëgg la comme fàttaliku nga rek. ay waay wax leen ak sëñ. waaw moom daal. Eh. waaw Asma Sour de moom man tëj na man kay amatuma lu may wax. waaw mais ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw xaaral ma pare waaw waaw waaw aja aja léegi ñu bàyyi Moussa. Ah, waaw Moussa aja Moussa Diallo. Moussa Moussa Diallo. effectivement Ndiaye juumuloo Moussa Diallo mooy boroom kër gi. Euh, moom nag moom nag defe naa ne dafa mel ni moom moo doon jéem a doon sëriñ bi. moo ko doon jéem a toppandoor. waaye toppandoor bi defe naa am na fu mujj. Moussa yan kàddu nga yëkkati. Euh, dama naan la doon kiin comme ni ko gan ni ñu koy waxee rek te man xam naa ci ay résultats. dégg la léegi ñu ne ko dama lay dama lay remercier ma naan la sabaltanaaw yaay jaxaayu diine dambe ngam réew amul ku la ragal ci àdduna bi mais kenn du la song ba dugg sa yow man xam naa ko ci yow te defe naa ne xam nga xam naa yàlla xam na te incha allahu rabbi yaakaar naa ne ñii man ñii ñooy samay njaatige ñii ñooy samay patron wallahi azim lu ma am ñii la parce que man aar daf ma jaral lu ne du jaraluma pour ma am ci li may am mais nañ artistes yi am. xam tax na artistes yi am parce que bëgguma ku sa tuutal artiste. parce que dañuy ay dañoo susuma artiste bu digne artiste bu am personnalité. te le presque le plus jeune des marab tout à fait. mais ku la ci ñeme amut. déedéet. xam la kon am na foo teg sa loxo te am na foo teg sa tànk te am na foo jàpp léegi nag liñ naan ko am wéeruwaay doo daanu ñu wéeru ci yow rek. incha allah merci beaucoup. merci euh, ma ñëwaat ma ñëw. ndeysaan ci dëgg-dëgg la ma daa waxte laa ko war ndax sama yaram daw na. ma jàkkaarloo ki nga xamante ca ci dëgg-dëgg. na buur. tëral na baadoola. tëral na ay maasam. faj na buur. faj na baadoola. ah ci dëgg-dëgg faj na ay maasam. ci xam-xam bu sell ba. ci fulla ja ànd saan ci dëgg-dëgg ci honnêteté ba ah ci dëgg-dëgg ki ma jàkkaar lool tey nee naa la bés bii bokk na ci bés yi nga xamante ne ndeysaan ci dëgg dégg c'est gravé dans mon agenda ma ànd ak ki nga xamante ne ci dëgg-dëgg mooy Moustapha Ox l'artiste le plus populaire ak kan le ndar-ndar le plus populaire ak ki nga xamante ne ci digg-digg moo tag alors président doo mu ngi mu géwél gi muy alaaj alaaj mortala sow père ba xar ak kan ki nga xamante ne ci digg-digg mooy Moussa Diallo mu seet si kilifa gu mag kilifa goo xamante ne ci digg-digg waxuma Sénégal waa àdduna yëpp xam nañ ko ci social ci fajam gu sell ndeysaan ci digg-digg lépp mu def ko ci dans la règle de l'art ak njub ndeysaan ci digg-digg nee la fëkk yóbbu ko ki nga xamante ne ci jàpp ji ne ray ko déedéet da jël defar nga doon taalibeem yàlla na sa jàmm yàgg tuubal la def la taalibe xar waaw ma jëm ci xaar may ma jaaga may su ma tëndi mbaa gëlëm nga waaw toog naa ki nga ne réew mi ko soxla réew mi ko bëggoon Thierno Moulay Sow mu baax maa ngi nii yal na yàlla la fal cat kon dama naan ko kaaro yàlla ne leen kaaro kaaro yàlla aaye yàlla bu la ca xam-xam gi leer na jërëjëf waaw jërëjëf nga sëriñ bi ñu ngi ñu ñëwaat ci yow euh, defe naa ne lii nga am te yoro yaa ko am vraiment ay artistes yu toll nii ñëw ah ñu ñu di leen gis ci petit écran di leen di bégee ñu ñëw seet si la tey saafonteeg yow ba am lu ñu fi yëkkati tey defe naa ne tey vraiment liñ naan tey képp ku fi amoon stress tey dafa mel bi dem na sëñ bi nag euh, nga nga ngay nga li nga dégg daal nga tontu ci rek tant que ñu bala bala bala ñëw bala ñëw ñëwaat ci waxtaan bi. waaw vraiment doyen macha allah li ma doon wax sànq rek mooy lii. vraiment ñoom dañuy bëggal nit ñi xam nga ñun bu ñu liggéey ba wàcc ba sonn nekk ci jinne yi di courte carte ngeen gis ni may sonnee vraiment su ma noppale ko vraiment di leen seetaan damay bëgg sama xel day delluwaat macha allah vraiment gis ngeen lu ñu def nii dafa rafet gis nga njaay lu mu daanelee léegi nii macha allah gis ngeen gars yi li ñu fi wax vraiment kontaan naa ci ñoom bu baax comme ni ma ko waxee fii seen kër la gàlle àlla gàlle moon daaru laahi macha allah dama bëgg ci ñoom lool macha allah ba pare fonk leen respecté leen ndax nag euh, macha allah ñii tey bu doon États-Unis wala France mhm. macha allah beneen affaire la mais xam nga euh, ñun Afrique xamuñu valeur culture xamuñu ko mais ñii tey bu doon bitim réew la ñu nekk vraiment macha allah état bi da leen di fay mhm. dañu am ay droit d'auteur dañuy am lépp macha allah waaye nag ah ñun ñoo leen di jàppale ñun ñoo leen war a jàppale mhm. macha allah di leen defal teraanga di leen teral di leen gën a valoriser seen li ñuy def ndax li ñuy def dafa am solo bu doon bitim réew la macha allah ñoom ñëpp ay milliardaire la ñuy doon waaye xam ngeen Afrique nu mu demee parce que ñii dañuy reetaan lu ñi xanaa xamoo Europe artistes yi ak euh, ñi def aar nii ñoom ñoo ëpp xaalis foofu parce que dañ leen respecté waaye xam nga ñun Afrique rek maanaam dañuy xam li nga mën waaye duñ ko jox cër duñ ko jox gëdd macha allah moo tax saa su ma leen gisee dama leen di teral vraiment di leen encouragé di leen ñaanal jàmm ak xéewal vraiment yàlla yokku leen incha allah dinañ jëflante ak ñoom bu soobee suñu borom. dinañ jàppalante ak ñoom vraiment dinañ dinañ leen dimbali bu bu baax a baax macha allah kontaan naa bu baax. macha allah naan leen bon appétit macha allah ay ginaar commandé nañ leen ay ginaar lépp barkeelu la rek xam nga fii fii fii nu ko ngoone di waxee mangé bois moom macha allah ngoone ñoo ngi koy nuyu aussi moom it dafa jàpp mais xam naa waroon na mun a ñëw dafa jàpp déggante ne ak moom vraiment di sant yàlla bu baax di leen dalal nag Thierno Moule pour ñëpp la macha allah. xam nga boo nekkee ci jinne ak rab ñenn ñi sax mun nañ la ragal yaakaar ne mais sëriñ bi bu nekkee ci liggéey bi beneen nit lay nekk mais bu nekkee ci këram nag day nekkaat beneen nit macha allah ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax vraiment di ñaanal ñëpp jàmm di kontaan bu baax ci seen teewaay fii fii seen kër la waaw seen TMS aussi seen TMS la waaw ndax TMS macha allah moo ngi dem ci seen seen TMS la vraiment di sant yàlla bu baax kontaan naa ci ñoom. Euh, c'est vrai que. c'est une partie en tout cas de cette rencontre bu am tey cet après-midi une rencontre historique ki a permis de sceller des relations des relations de partenariat mais des relations d'amitié certainement euh, qui vont nous valoir beaucoup de satisfaction euh, te marabu bi dégg ngeen dégg ngeen d'abord avant marabu bi di wax artistes yi ñoom ñëpp bi ñu waxee benn wax bi lañ wax sëriñ bi tamit bi mu tontoo dafa tontu dans le sens ba bi ñu waxee mu mel ni tey euh, bunt yëpp ubbeeku na macha allah ah ñuy ñaan yàlla nag partenariat bi ñu gis ci lu koy su njort yàlla mën na ko def yàlla na ko yàlla def Saliou vous nous faites la version en anglais. Merci beaucoup, Dwayne. Thanks a lot, Dwayne. So you see, uh, you know, uh, dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, as I am always saying, your favorite channel, the channel showing every time what is hidden. You can see, uh, you know, channel Mulay so the Khalif of the Jinns sitting, you know, on his chair, and you can see these very great artists, you know, who are here today just to talk to channel Mulay so the Khalif of the Jinns. You know, channel Mulay so was just, you know, uh, doing, uh, you know, good things with artists because in his very channel, in this very Ramadan month, you know. know, he did, you know, uh, kind of sketches, you know, called Ramadan Mule, and that was really important. You, you could, you know, see there uh, Tafa Ox, you know, you could see also Musa Jallo. So today now, we're having new artists like, you know, Per Bukhar, like, you know, Njai Toj Toj, you know, and something like that. They just come to see Channel Maleso, the Khali General of the Jinns, because they know that Channel Maleso is really a great artist. He's a great Marabu who is just helping everybody, helping, you know, the, the, the artists and helping, you know, all the people. That's why they came here today, so as to talk to him and try to to have a good job with him. So you see, that is what is happening. You, you can hear uh, even uh, what you know what Tafa Ox said, what uh, you know Per Buhar said, what also Njai said, and what Njol said. That was really important, and we are very very happy. All the staff is happy. Dwyer is happy. I'm happy. Kara, Pap Jan, Alsane, everybody is here so happy to hear this kind of artists. You could, also hear what uh, Njai was doing. You know, imitating Majaga, imitating also Alaji That was really important, profession is really happy about them and telling them you are doing the same job as me because you are healing people and I'm healing people. That's why I will be, you know, helping you till the end. I'm so happy for you. That's what is happening right now. You can see all this kind of foods, all this kind of drinks, so as to make them only happy. I, I think that's really important. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, Père wax na ko léegi, il y avait une première mi-temps jàll na lii defe naa deuxième mi-temps bi la. caméraman bi nga woon ma deuxième bi ñu jublu ci nag à looy métti sama tànk métti destan yi xoolal xoolal lii ndax jaadu jaale jaale mu métti métti nga bugg a wér waaw maa bugg a man mii maa bugg a wér te jaale jaale mu métti métti nga bugg a wér waaw maa bugg a kon topp ma waaxul topp ma ma yóbbu la ci doomu soxna Mariama Kamara Cerno mu leesoo léegi léegi nga am loo gis léegi léegi nga am loo yëg inshallah nga am loo gis bu soobee rab nga am loo yëg dëgg dëgg dëgg war naa ñoo gisee kam nu selli ana renti kam nu selli ana renti kam nu selli allahu akbar wir naa yeyeyeyeye alla yaw ɓeyda yeyeyeyeye alla yaw ɓeyda yeyeyeyeye alla yaw ɓeyda consulte moi voyons je suis guéri surtout moo fayoon te te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee koney Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Soundiata Keita roi des Djinné aye léegi léegi léegi léegi mu dem coonee ko brusquement avec sincérité mooy mu raw maa ngi ko lekk waaw bu tànn. waaw mais loo xam si berne bi. non kenn mu see toj na fi. daf ñoo bernde bernde bernde tuwarkalla lii lii lii lii lii ci ñaata nit bariwul lu téeméeri nit war a barkeeloo mu ëndil ko ñetti nit ma juróomi nit yàlla na jàmm yàlla mun jëriñ dugal rek la mën nii naka jeeg boo ko fekkee ca biir door balaa xam ku sévère yi waa di soxor xoolal ma li muy defati rek non xaaral jibi bay goro jibi de robinet la fi créé bay bay bay bay moo ko fekkee ca biir door balaa xam ne waay jël kii ñu la sonal kii ñu la sonal ak yéen kër naa nag lii suñu jukk la waaw boo laajtee suñu sécurité yi sax dinañ la wax waaw maanaam maanaam lii suñu jikko la teraanga man damaa xam teraanga bëgg lu baax man noonu la doomu aadama aussi yàlla moo ko teral waaw doomu aadama danga nga war a teral waaw man damaa xam lu baax di teral ay nit moo tax yàlla teral ma waaw macha allah vraiment kontaan naa ci yéen bu baax kontaan naa ci ñëw bi ngeen ñëw macha allah. waaw. wax dëgg gis. li ma fi gis tey jii kër sëñ Abdou Karim mbàkke rek laa laa laa koy gisee waaye nag nitu yàlla yi ñoo bokk fa ñuy daje <laughs> ñoo bokk idée ñoo bokki bagaas en tout cas kontaan nañ bu baax a baax tey lii lii lii ñu defal nii euh, waruñ cee bàyyi dara ndax dina tax ëllëg ñeneen ñoo xamante ne nii yàlla dimbali leen ñu jàngee ci bu baax a baax a baax tey li suñu borom naan wala xaddi karam naa ba ni aadama tey loolu nga wone invité ñu sa biir kër teral ñu jox ñu barkilu ba suur te loolu bokk na ci jaamu yàlla gi gën a foor kon loo def ci ñun yal na nekk sa azakay déwén yal na nga ko yàgg def ci barke yonent bi liñ naan euh, def lañ la comme sunu bopp sax day xaw a sori ndax fa nga yegg gëw sax ñun danañ fa yegg ndax waxuma dara waaye <laughs> ngelaw jinne rek ku ko seen naaw <laughs> waxtu waxtuma naa en tout cas daal la sëñ saali waxoon ci taalibe yi diñ la dinañ la gestu topp ci sa ginnaaw waaye tamit di leen di la ñaan saa boo gëstoo seeñu seenooñu taxawal xaar ñu saa boo ñu làmbee dajuñu dajoñu taxawal xaar ñu làmbaat ñu ba daj ñu ñu ci sa ginnaaw te comme ni ko père waxee woon rek lépp loo soxla ci ñun ak lu mën ci doon taxaw nañ pour ànd ci yow ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax du xéewal yi dara waaye euh, éducation bi ñu war dal gi yar gi ak dëggu gi ci sa biir xol man loolu laa jàng ba pare di nit ko am kersa koo xam li muy wax yépp du la xool ci biir bët kon du ma table ne xam-xam bi la yàlla may am na lu am la ndax comme ni ma ko waxee woon rek lépp loo am bokk nga ko jàmm ñi yal na sa teraanga sax ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam kontaan nañ trop trop trop trop xaaral ma jox Moustapha. waaw ah, kontaan parce que loo xamante ne moom gis nañ ko gisaat ko gisaat ko yëg ko yëgaat ko yëgaat ko su ko delloo su ko defaatee mooy loolu waa di wax fi nga wokk foofoo xasan waaye delloo nga fa sa loxo loolu rek la nit moom da koy gis rek xam ni teraanga la xam donc kon. ñu ngi lay ñaanal yàlla daal yàlla bàyyi la fi lool te comme ni ko gars yi waxee comme ni ko njaay waxee léegi rek boo demee ba sore séenoo ñu rek gestu ñu waaw defe naa ne kontaan moom bu amoon leneen lu gën a raw kontaan dañ koy wax waaw mais kontaan nañ trop bég bëgg de wax dëgg yàlla xam nga mag ñi dañuy wax naan eh, lu nëbb ci xol rek feeñ ci kanam lu làqu ci biir xol day feeñ ci kanam xol bu ca mbaax laluwul. ak ngëneel néew ji doomu aadama bu du mën a jëf lu baax te yow ku la xool xam ne wax dëgg yàlla teraange yi nu gis fii xam na ne yow loo am bokk nga kook jaam doonte nu wëlbatikoo di gis di gis ndax xam nga nun Sénégal ay sénégalais lañu dañuy gis di dox wax dëgg yàlla ay doomi aadama di seede ci yow di wax ci yow ay teraanga yoo leen defal kon wax dëgg yàlla nun bu nu ñëwee teg ci sunu bët déjà kon ñun seede yan daan déggit duñ def lu dul prouver approuver ko rek xam ne carrément que nit ki ñu doon wax nun mi ngi nii waaw nit kan doon wax mi ngi nii waaye nag yàlla du fay wax mukk di bàyyi jëf te yow yaa ngi jëf kon yàlla na la sunu borom gën a taxaw tey daal bég nanu moom sunu xol sedd na guy kontaan nanu yàlla na la yàlla yàlla yàlla guddal fan wi waaw ndax yàlla na yàlla guddal fan wi ci barke yonent yàlla Muhammad yal na yàlla guddal fan yu bàyyi laa sak njaboot bàyyi laa si équipe bii ci barke yonent yàlla Muhammad ndax nag ñoomit nag nit nu accueillir wax dëgg yàlla dafa rafet ndax bu leen neexoon xatal nu ndax sawaay maa ngi naan ko man de ëllëg bu nu fi dee ñëw bu ma la gisee ci bunti ba moytul danaa wàññi ko ñibbi ndax yow da ngay joxe rek <laughs> nee naa ko yow rek nu koy jox rek waaw moo tax daal wax dëgg yàlla te nit nu koy joxe xam nga nit lekk léeg sa soxna sax dana defar ñam ba mu neex ñëw tegal la ko sa loxo du ca dugg ca joxin wala ca joxin wa daa am lu nun la koy indilee non da ngay am envi mais am na lu nun la koy indilee sa loxo sax du ca bëgg a dem da ngay suur waaye wax dëgg yàlla fii moom nin nu yére ah nun daal kontaan nanu bég nanu te yàlla yàlla dool di jàmm te koy ànd ak kilifa nag noonu lay war a mel booy ànd ak kilifa kilifa gi am mbooloo am ay nit non am na comportement boo war a yor am na beneen comportement boo yor rek la noo yow kër googu foofu du sa kër wax dëgg yàlla mais nag kontaan nanu bég nanu lool kontaan nanu lool sunu papa wax ji mu fi wax wax wi rafet yi moom xam naa ni moom yow yow yow noo yow moom ku nii mënta ñàkk sa wet ku mel nii mënta ñàkk sa wet waaw ndax wax dëgg yàlla ñun ay kat lañu ñun danoo jàng wax donte sax am na lu jàng ci communication ñun mais moom wax dëgg yàlla eh, moom daal. la moom daal tuwarkàlla yàlla na yàlla guddal fan yi bég nanu kontaan nanu yàlla na yàlla dooli jàmm jërëjëf jërëjëf waaw fierte la rek ñu ñëwaat toog fii di di gërëmaat sëñ bi di gërëm li nga wax rek ñoom yaat maag ñoom alseeneek ñoom karaak gaay yëpp mhm. booy agis kii sama coach la man xam nga mooy sama su ba pare vraiment daf ma daan jox ay production pour ñuy spectacle sama grand la ko moom wax dëgg yàlla du ma ko gërëm dama koy ñaanal rek xam nga parce que kii dafa def teraanga goo xam ne bii Ford Escape bi ni mu seere gis xam ñaar xam nga seer na nga jënd ko jox ko sa équipe technique yi def caméra bëriwul gars yi fi def de sëñ bi moo ko def bi mu ubbee te TMS vraiment dañ koy waaw oto bi ñu gis bu kii bu kii orange ba la voilà boobu pour pour technique yi est ce que mas na ci yéeg sax laay wax moom kon xam nga waaw kay kon vraiment teraanga moom waaye nag kuy faji jinne di yeewi jinne kay dëmm di la jaaxal kon xam nga ne sax ay vraiment koo teral du la jaaxal yàlla na la yàlla teral jërëjëf waaw jërëjëf euh, merci beaucoup ci kàddu yi parce que teraanga teraanga rek moo koy fay te lii teraanga munu ko weesu per wax nga lu am solo tubaab daf ne la manière de donner vaut mieux que ce que la manière de donner vaut mieux que ce que moom la moom la moom la moom la <laughs> non bul jooy déet bu eh, eh, eh, non arrête arrête day tappale d'accord euh, kon nag euh, sëriñ bi mu ngi noonu kontaan nañ trop parce que ñun ñi nga xam ne nii euh, maanaam dafa am foo ñu teg parce que communication dafa am solo te à chaque fois nga am gan ak loo munti seex ak moom rek da naan ana sama équipe bi nañ ñëw toog fekkee donc teraanga bu mel ni c'est pas la première fois te xam naa ne ça ne sera pas la dernière fois donc lii ngeen fii wax maanaam euh, da ngeen baliser la voie yoon nag buñ ko xàllee rek defe naa jaar ci rek moo des am déet kon nag sëriñ bi ñu ñu delluwaat la kàddu gi yi ay parfum la. ah. ay parfum allah cinq la ñu ay parfum la yaat moom mën nga ñëw ak Algérie. yaat moom ay t-shirt la. le t yi dafa am baatin aussi te dañ koy jaay benn t vingt cinq mille. dëgg ñaa ngi koy jënd fu ne partout dans le monde. defe naa ne ñi ñaa koy jënd ñii ngi jóge Amérique ñu ngi jóge fu ne di ko jënd. gannaaw nag samay gan lañu te boo amee gan moom da ngay xool li gën a baax. li gën a tedd nga jox ko gan. dëgg la. moo tax nañu bëgg leen jox t-shirt yi vraiment macha allah moo nekk nii nga xamante ne yàlla da ci def barke defe naa ne ñi ñaa ngi koy jënd si bu baax te xam ngeen ne t-shirt buy jar vingt cinq mille loolu dëgg la t-shirt yu neen daal waaw waaw macha allah ñi ñaa ngi koy jënd si fu ne vraiment am na ay couleurs yu bëri macha allah ñaa ngi koy jënd saa su ne di jóge Amérique France Italie Allemagne te ñoo ngi ci def ay témoignages tamit yi am solo ndax dañ ci def ñaan def ci baatin ba mu am barke dina dimbali nit ci lu bari daal macha allah ma ne nag ma ma ma jox ci sama gan ñi tamit ñu mun ci barkeelu ñoom tamit waaw kenn ku ne mën a am benn dina la dina la dimbali macha allah waaw pare ak parfum yi aussi ñu yëkkati euh, xaalis tamit 200 euh, euros jox leen ko paas waaw lii nag ñoom laa ko jox ñoom comédiens yi ah. waaw ñoom ñoom ñoom ñoom quatre ah, personnes yi. Mhm. ñu seetoo ko ah. waaw bii moom pour ñoom la. Ah. <laughs> deux lii moom macha allah euh, dina dem ay cent cent trente cent trente nangam mille waaw cent trente mille macha allah. kenn ko ne mun na am vingt cinq mille ak lu teg loolu du dara nag parce que ay gan lañu ak parfum classe yi macha allah eh, parfum yi macha allah yëpp jógewul fii xaalis baa ngi nii nag ah nga ki ci a tudd daal nañ ko jox ki nga xam ne waaw mais Ndiaye Ndiaye mais Ndiaye doo ma tontul ki yow tamit. moom macha allah yàlla dañu koy jënd si bu baax. léegi gis ni vingt cinq mille lay jar.

macha allah macha allah yëpp am na solo. waaw waaw. waaw li ma gën a yéem ci ci seet yi. waaw dañ koy wax mu si wuy. mu leer la coton la bu raxul dara. ba pare nag am duwaaw am duwaaw nag. am duwaaw waaw am duwaaw. wa waaw loolu dara. waaw. Eh, eh, eh. boobu moom boo wax la Njaay. <laughs> macha allah. ah. jaay la joxe ngeen ko jox ki gën a jege rek. maanaam day joxe day joor càmmoñ baaxul. kon nag kon nag euh, paas paas baa noonu. Euh, barke yonent bi lii ñu ngi waaw li nga xamante ni dafa jox artistes yi gën a bëgg muy ñaar artiste la gën a bëgg ci àdduna maanaam lii day symboliser neex bànneex ci lekk ci dëkkuwaay ci jotaay ci ci njaboot gi ci ñi muy tasante ci réew mi ndax loolu la leen yéene dama koy faral di wax ni leen artistes yi yàlla dana fay seen yéene ndax ñun suñu yéene a chaque fois mu la mooy di bégal ñi ñuy reetaan xam nga agresseur bu yeewoo suba li muy njëkk yéene mooy tiital nit nangu alalam bari na ci ay politiciens yoo xam ci réew mi seen yéene gu njëkk mooy nax nit ñi lekk seen i alal bokk booleka ak seen njaboot yaa ngi dégg waaye artiste comédien bi saa bu yeewoo suba yéene mooy reetaan loolu nit ñi kon nit ñi nga xam ñu ngi ñàkkal fayda artiste comédien yi nañu xool bu baax ndax ñun suñu yéene mooy di leen ba tax na Thierno Moule maanaam yéene gi nu am ci nit ñi tey yéene goog yow am nga ci ñaar bégal nga nu waaye bégal nga ñi yi nga xamante ni ñoo ni ñoo ñuy bégoo muy lan xaalis ak parfum bi ku xool parfum bi di parfum boo almuhaj nga xamante ni xeetu parfum yi amul sax ci réew mi lii boo ko xoolee xam ni authenticité la lii la buuru màkk di tuuroo kon di parfum al muhsin yi boo xamante ni cher na cher goo xamante ni Thierno mu la yëkkati jox ñu ko boole ci xaalis bi nga xam lii sama par sa man ñeneen ñi si des dinañu am man maa ngi leen di jiitu jërëjëf <laughs> waaw jërëjëf euh, jërëjëf jërëjëfati jërëjëfati sëriñ bi euh, lii yàgg nga ko def lii miin nañ ko ci yow euh, defe naane defe naa ne euh, xol sedd na ah mu ngay kaf de xaw ma dana dëggal kafa moom déet ah mais mais mais per gis nga t-shirt yii baatin bu rëy moo ci nekk parce que ñun ñuy liggéey moom ak nit ñi niñ ko ittewoo ak njëriñ bi mu am ci nit ñi ñun xam nañ ko am na ñoo xam ne bu ñu leen jaayoon t bi cent mille francs dañ ko jënd def ko seen yaram xam nañ njëriñ parce que xam nañ njëriñ bi partout à travers le monde nit ñi dañ koy commandé seen Seyni ngi nii GP day dem chaque jour GP di dem chaque jour ñu laaj t-shirt yi kon nag defe naa ne tey euh, sëriñ bi may na leen jox na leen tey lu mu fonk trop muy t yi nga xam ne nii vraiment moo ko liggéey ci loxo boppam am lu mu ci def kon nag sëñ bi defe naa ne lii liñ naan rek le mu de la muy ñaan ñu mun a yeeweeku nag. waaw macha allah kontaan naa bu baax a baax. vraiment ci seen ñëw bi. Euh, bëgg nañ lool sax ndeysaan moo tax ñu wone ko kon nag dañu leen di ñaanal rek vraiment macha allah gis ngeen tiset mule mule yi ma leen jox tiset yi macha allah baatin moo ci ne. nu ko doyen wax. am na ñi nga xamante ne mun nañ ko jëndee lu ëpp cent mille parce que dañu xam njariñ bi njëriñ bi nag boo ko xamee di nga xam lan mooy t-shirt bi ndax t-shirt fii Sénégal kenn ku ne xamante ne ne t-shirt yi simple yi ay deux mille lay jar deux mille cinq cent mais t buy jar ay vingt cinq mille quinze mille xam nga ne dafa am lu ci ne dafa am baatin kon nag moo tax booy jox nit ki da nga koy jox lu baax li nga gën a bëgg t-shirt yi dama ciy solu sama nit ñi dañ ciy sol taalibe dañ koy jënd ndax dañ ci gis njëriñ kon nag vraiment di kontaan bu baax a baax yal na yàlla may leen gudd fan ak wér euh, ba li ñu bëgg continuer ci aar bi ñu def ko parce que ay jàmbaar lañu vraiment ñoo ngi ñoo ngi yee askan bi ñoo ngi reetaanloo ñoo ngi faj askan bi vraiment man kontaan naa dama leen di ñaanal rek macha allah yal na yàlla yokk yal na yàlla sàmm ci barke yonent bi salaa salaam ci barke ñetti Thierno Moule Sow kon nag bëgg nañ ak équipe TMS TV kontaan nañ ci seen ñëw fii Galle Allah Galle moom daarullahi kon nag yal yàlla def jàmm. macha allah. waaye ci seen caaxaan de waaye ci seen caaxaan de déedéet jërëjëf jërëjëf Sow jërëjëf Sow merci jërëjëf jërëjëf ñu xaar sëñ bi génn ba noppi waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf gunge ko toog ci ginnaaw gunge ko waaw loolu lay dëgg jërëjëf Sow waaw kon njaboot dëgg la dëgg la maanaam macha allah rabbi kontaan nañu merci jërë ngeen jëf gan buur la waaye gan la buur la jëwal la waaye gan dox la jërëjëf